di nuyu ñëpp di wax ni waa Thiès Info amal nañ leen sant ndax wax dëgg yàlla yéen yéen a ngi taataan li nga xamante ni moom mooy jafe askan wi di taataan li nga xamante ni moom la nguur gi fi nekk di def ci ay réalisation askan wi di ci gis seen bopp kon ñoo ngi leen sant bu baax di leen gërëm di ñaan nag suñu kàddu fekk ñëpp ci jàmm bon di la wax ni Aly Ngouille Ndiaye ñun le président Idriss Seck wax na ci ak ñi nga xamante ni ñooy opposition bi dañuy demandé sa démission parce qu'il n'est pas apte pour gérer li nga xam te élection présidentielle 2024 di ñu jëm 2019 dimanche ndax tey le président de la république Macky Sall su fàttalikoo ginnaawam am na lu bëri loo xamante ni tey moo ngi koy nangu bañoon na te dafa war a nekk un républicain ndax Abdoulaye Wade prédécesseur lépp loo xamante ni fi mu ne defar na ko Abdou Diouf def ko président Macky Sall war na koo def pour gën a saxal démocratie suñu réew ndax moom yor ngeen li nga xamante ni mooy archives yi génne leen ko taxawoon na ne Ousmane Ngom du yoon muy organiser élection parce que dafa far Abdoulaye Wade tamit jël Cheikh Gueye chargé ko les élections ko ministre mu nekk koo xamante ni personnalité bu neutre la kon je crois que fi mu toll nii li ñu ko nangaloon démb moom war na ko mën a nangu. tay nak weru, wéru parce que li tax ñu wéru moy ali Ngouille ndjay ben télé à la place interviewé nañ ko mu ne moom yéeneem ak lim bëgg moy Macky Sall jall premier tour képp koo xamante ni wóor na ko dina wooteel président Macky Sall dina fexe ba mu jot carte d'identité nationale am biométrique su ko jotee te turam nekkul ci fichier yi mu jël kooku inscrire ko jour 24 février 2019 mu jël ko yóbbu ko mu le président Macky Sall pour mu jàll ci premier tour kon kooku warta mën a arbitrer pour di organiser élection yi nga xamante ni gis nañ ni Abdoulaye Daouda Diallo quoi yi passé ci élection législative yi élection bu gën a bone noonu depuis 1960 à nos jours amul ndax Abdoulaye Daouda Diallo gis nañ ni 52 milliards wax nañ ni jël na ko ko ci carte d'identité

parce que ñoom ñoo fi toogal état te ministre de l'intérieur yilif leen te ñoom ñi doon jël carte yi di ko joxe ñu ci commission bi jël carte d'identité yi nga xam te ni moo leen favorable tey Fuuta 96 pour cent jot nañ seen carte d'identité nationale parce que jàpp nañ ni ñoom la ñuy wooteel boo demee tey dëkk bu mel ni Touba ñu seen carte d'identité de plus ñu jël carte d'identité yi jaawale ko ñi nga xam xamante ni moo leen favorableul ñu jël seen carte yóbbu ko ci yeneen raison kon je crois que fi mu toll nii foofu la luubal amé ba élection yi passé ak càcc gi def lepp 49 la am tey nak ñu wax ni kon élection présidentielle ñom lu mu leen jaral ñun jaral ñu ko ñun ñi nga xamante ñi ñoy des ci réew mi suñu dom di fay les pots cassés pour xamni mom moom fi mu toll régime bi ci nekk yàq nañ li nga xamante moy Sénégal Sénégal nga ci goute go xamante wax dëgg yalla fi mu toll war na mëna taxaw opposition bi tamit nekk opposition bu responsable fexé ba carte d'identité nationale ñu jot ko à temps de plus Aly Ngouille Ndiaye ñu réclamer sa démission xamni ni moom fi ñu toll warta mën organiser élection yi ñu jëm ci 2019 loolu moo ci doon suñu xalaat man damay wax ni coow li lépp ñu amul gaa baag ñoo ko waral parce que coow ci pindu teen bi ñi nga xam ne amuñu baag ñoom ñoo ko waral le président Idriss Seck ak Thiessois dana am benn affinité boo xamante ni leen boole mooy réalisation yi nga xamante ni Idrissa Seck def na ko Thiès ci bannière Ablaye Wade kooku du ma noppi di ko wax ndax ñun wax nañ parce que le président Idriss Seck bi muy au pouvoir ànd le président Ablaye Wade di qui li def Thiès tey moo fi des ba ñun je que le maire encore contre lui mais élection est passé wane na ko su doon Idriss pour Thiès du leen rawee voix ak alal ji fi jël

chaque jour apaisement la indi pour ñaari camp bu amé problème dañ cey mëna a wax lu rafet suñ ko parce que réew mi Sénégal 95 est musulman lan ñi ci top moy suñu mbay mbok chrétien te sallallahu alayhi wasallam nee na soo wax wax ju le problème nak man ci côté le président Idriss Seck tay gis nañ ni rebondiraat na askan wi ñong koy dem nañ ba comprendre l'homme de la situation pour li nga xamante ni mooy jafe-jafe askan wi tey askanu Sénégal bi nga xamante ni ñoom majoritaire jàpp na ni Idriss Seck moo mën a saafara li nga xamante ni tey mooy jafe-jafe askan wi léegi nag am na ñoo xamante ni tey dan na cere ji peut-être duñ ci lekk nañ ci xëpp suuf te loolu du jàll sénégalais miir na xam na nañ fu ñuy teg seen tànk xam na ni Idrissa sekk nit la koo xamante ni li mu gëm mooy compétence tey Thiès suñu toll nii mu ko def ba tey foo dem ci Sénégal ñu lay wax ni Thiès xar kanamam bëgg nañ am dëkk bu mel noonu nan ko sante le président Idriss Seck tay fiñ tol nak man limay wax encore une fois di interpeller le maire Tala que ni wax ni jël lu ñaaw li di ko tekki dara Idriss Seck mom lay wañi dara jam mais du wañi dara Idriss Seck dara ndax fiñ tol wax na ko ne mom kilifa la encore une fois duma nopi ni kilifa du ta tay mom fiñ tol ni ni ta tontonté parce que rew mi amna lu fi def lo xamanteni ni war ko yak enter ndax patriote le Sénégal yëpp xamone ni mom la yag na combat pour intérêt Sénégal intérêt Thiès mais tay bari na ñuy wax ci sen intérêt personnel leen yàq moo leen tax a jóg iñaane li nga xamante ni mooy Idriss Seck li ko ceesuwaay ak Sénégal joxaat bopp ñu gis ne fi mu toll moo ngi ci yoon woo xamante ni su ko bàyyiwu ëllëg mën na accéder au pouvoir pour faj jafe-jafe askan wi. c'est que problème à nekk man du kanamu Macky Sall mu ma intéressé woon dañ fa am benn réew boo xamante ni mooy Sénégal ñu bokk ko man ma dëkk fi juddoo fi yaraw fi am fi doom am fi ndey am fi baay tey Sénégal bu doon lakk Umar man aw ma fu ma jëm ak sama njaboot Sénégal bu doon def doom tey mara day taale ñun fii la ñuy des. tey kon képp koo xamante ni jóg nga pour teg Sénégal ci yoon ñun dañuy ànd ak yow président Macky Sall bi mu ñëwee li muy waxoon mooy dina changé def des réforme institutionnelles teg dëkk bi ci yoon ba trois pouvoir yi nga xamante ni tey mooy tax am réew dox pouvoir bu ci nekk am sa cëgal guy teg mbir yi ci yoon ba tax na fi mu toll tey pouvoir yooyu tey fàtte na lépp loo xamante ni diggoon na ko Sénégalais yi ndax mënuñu concevoir le président Macky Sall ginnaaw bi nga xamante ni tey. moom mooy fi mu toll ni président de la république ñu doon xaar ci moom rupture mu jël réew mi def ko partage gato boo xamante ni tey jàpp na ni képp koo xamante ni ànd ak moom mu jox la tàngal nga màcc pour jàppale ko ci li nga xamante ni mooy dëgëral njowaanu nguuram loolu fi mu toll moo tax tey ma taxaw pour défendre le président Idriss Seck parce que mu nekk Idriss Seck àndoon nañ ci benn bokk yaakaar jàppale le président Macky Sall ba mu falu te lim ñu diggoon mooy bu ñëwee dina teg réew mi ci yoon. ba képp koo xamante ni sénégalais nu mën a gis bopp su réew mi tey front social bi li ko waral mooy orientation bi muy digoon ci yoonu yokkute ay émergence da koo dérouté man nag su dee dama jóg ngir jëm ci yoon woo xamante ni émergence la pour sama njariñu bopp ak sama njariñu réew oto bi nga xamante ni ki koy conduire mooy chauffeur bi suñ demee ba ma bëgg a yóbbu ci alkande danaa am fu lay taxaw ne ko fi mu bëgg a yóbbu du foofu te président Macky Sall fi mu jëmee Sénégal ci alkande la boo xam ne tey suñ ko arrêté wul suba suñuy doom ñooy fay les pots cassés ndax soo xoolee tey front sociale bi am tey lépp loo xamante ni mooy alalu réew mi dañ koo teg ci cëggal guy président Macky Sall pour mu définir li nga xamante ni mooy politique nation bi ngir lan secteur bu nekk mu def ci la ca war ca lay priorité mais tey alal jooju da koo jël di ko gere ñoo xamante ni fi toll nii ay responsable yoo xamante ni Sénégal ñoru leen tey rien pour seen intérêt personnel. moo tax tey fépp foo laal ci réew mi dafa mel ni yaram màgget fépp mooy metti enseignants yi tey ñoo ngi grève santé baa ngi grève napp gaa ngi grève mbay mi gerte gaa yi nii fi mu toll plus de un million quatre cent mille tonnes yoo xamante ni tey actuellement moo ngi ci àll bi lu ci ëpp fi mu toll max yi lekk na ko seen gerte moo ngi yàqu te tey gisuñu kenn ku leen dimbali kon nag front social boobu nga xamante ni moo ngi am ci réew mi tey. man munuma bok ci ñi nga xam te dañuy taxaw naan Macky Sall noko defé baxna parce que mom du bour du bumi dañ ko fal jox ko république pour mu doxal li nga xamanteni moy Sénégal kon nak yoon woowu su tey da ko dérouté ñun ñi nga te ni ak te mu diggoon ñu fiñ tol dama bëgg a tek Sénégal ci yoon wo xamanteni comme Rwanda ni mu doxé tay nga xamni 93 lañ joggé ci guerre tay Paul Kagame tek na Rwanda ba fim toni ku fa bëgg faju di nga faju njang ma mo ngay dox ño ngay yar xalé yi di tek réew ma ci yoon ba Rwanda fim mu toll nii bokk na ci tey réew yi gëna a développé ci Afrique kon je crois que fim mu toll Macky Sall loolu mu ñu digoon su ko dérouté ñun dañuy am fulay taxaw ne ko non idul sek nak fim toll tey li tax ma andat ak mom ties fi la am bay sa wewu tànk te ties fim mu toll li doon jabul ci idul sek yépp nan deful ci dëkk bi dara lim fi bayiwon ci jamono ablad moom la fi def ba tey Macky mu def 7 ans ñew na fi conseil des ministres centralisés

mais ki la dig añ joxulako la ko dig la njogonal joxu bu la diggee rer waroo koo gëm loolu fi mu ay fala fala yo xam te ni xam na ni ñoo ngi jëm ci élection yo xam te ni Sénégal yi ci ëpp ñu leen wootaloon ak 65 pour cent war na leen ginnaaw léegi fi mu il faut ñu xaymat leen ci lo xamante ni dañ leen koy naxé ngir ëlëk fi mu ñu wootal leen ñu mëna taxaw fi mu toll doxal li nga xamante ni fi mu toll mooy seen intérêt te lolou fi mu toll Sénégalais yi waratuñ ko nangu tay waratuñ ko nangu suba parce que Ablaye Wade ken sanctionné wu ko ci ay réalisation tay li baax ci réew mi Ablaye Wade ko fi def te gis naa ne fi mu toll meeru Ablaye Wade tey le président Idriss Seck moo ko mën a réglé parce que encore une fois wax naa la ko Ablaye Wade li ko Idrissa Seck def Macky Sall def na lu ko raw ci loo xamante ni tey mettital xolam ba tax mënatuloo dal jël njabootam fi ne sacrifié leen te loolu yëpp fi mu toll Ablaye Wade jiwu ko ko kon nag Idriss Seck je crois que am na raison ci kaw waa PDS am na raison ci fi mu toll li nga xamante ni mooy askan wi kon fi toll ñun du ñu topp koo xamante ni dafay bojj di ba di di di di topp kuy taxani bàyyi kuy bojj. nguur gi ñoom li ñu desee mooy diaboliser ak fi ne jéem a réeral xel Sénégalais yi ci acte bi ñu toll ñun li nga xamante ni mooy suñu programme ñun ñi nga xamante ni ñooy jàppale le président Idriss Seck suñu programme mooy na lañuy def ba jooyante réew mi gute gi mu nekk mu jóge ci ñun talu ñuy góor jigéen parce que fii góor jigéen munu fee jàll kooku du débat le problème à nekk ñun li ñu tal tey Umar mooy suñu doom yi nga xamante ni dañoo war a jàng ëllëg ñu am xam-xam suñu ressource naturelle yi na ci réew mi muy pétrole gaz zircon ak li nga xamante ni or la ñu xool fi mu na leen ko mën a exploité ba doomu réew mi dajaloo jariñoo ko deuxième point bi mooy à l'heure actuelle li ñu tal ñun programme bi nga xam moom la ñuy woote mooy sécurité bi nga xamante ni tey moo ngi ci réew mi di la mbaaje Touba Mbacke jël nañ fa benn xale bu am sept ans Ba rey ko rey bu ñaaw soo demee mbaaw xale bu nu fa jël violé ko ba pare rendi ko mu ngi fii suñu programme ñun tey nan la ñuy def ba dooleel sécurité bi wàllu police gendarmerie dugal ci effectif bu doy pour kaaraange mën a am ci réew mi parce que programme bi ñuy waxoon ñu problème sécurité ASP président Macky Sall vision bu bu ma naaw la ci benn dire bo xam ne dana dañ leen jël provisoirement pour mëna am effectif bu dëgër bi muy jël réew mi ne ASP yi li tax ñu jël leen donc agence de sécurité et de proximité pour jege askanu Sénégal dem ci gaar yi dem ci gaaru ceer yi dem ci quartier yi jege population yi lepp luñu ñu fa gis si ñaawteef teel koo indi signalé ko police ak gendarmerie def ci li ci war tay soo démé tay ci police wala gendarmerie soo fekkee quatre policiers assermentés wala deux gendarmes assermentés fi ton toll da nga fa fekk di fekk vingt ASP yo xam tane ni liggéey police waroon def lepp ñom ñokay def tay yokalat na leen je crois que fi ton bo xolé tay tey xale yi cinq cent mille emplois yi mu leen diggoon ñun dañoo bëgg ñew ñëw joyanti lool parce que suñu docteur tay plus de 600 cent docteurs yoo xam tane ni am nañ seen diplôme tay ñoo ngi chômé ñu les len en rade 2500 sages-femmes yoo xam tane all bi tay am nañ problème sages-femmes tay kenn jëlu leen tey pour wax na ne réew mi ñun lool lan tal xool fi mu toll nan la ñuy indi programme bu leer boo xamante ni xale yi dana am éducation boo xam ne dana leen jox matière jàngal leen yar leen ngir ëllëg fi mu toll nii ñoom ñi nga xam te ne ñooy mujj réew mi ëllëg ñu mën a des ci réew mi koom-koom ci réew mi ñu mën ko exploité ci réew mi jariñoo ko ci réew mi Sénégal mën a jëm kanam tey fi mu toll ñun loolu mooy suñu komba le président Idrissa Seck loolu lay def tey wër li nga xam te ne mooy askanu Sénégal pour taataan seen jafé jafé xol lol loolu fi mu bu démé ba yalla dimbali ko mu jot réew mi mu xol fi mu toll nan la ko mën a pour Sénégal jëm ci kanam parce que ñi ñu pour waxal né la ñom amuñu vision dañuy tatoné tout récemment problème transport mënul ñak ci réew rey yi fi ne di am nii li indi moy manque de vision parce que tali yi tey dañu war ni waroon am deux voies ñun ñu ne président Macky Sall mo yak dé mais état continuité la tay priorité wax naa la ko ci tali yi suñu amone deux voies tali yi yaatu accident yi dina wàññeeku carte grise yi tey bari na oto yu bari yoo xam te ni ñoo ngi bañ oto yu jóge Europe am na fi oto yu defee 40 ans carte ku leen koy jox état moo leen koy jox kon suñu war a trouver solution dana war a woo acteurs ñu toog waxtaan mais suñu nee tëll ñoom ne damm na tout récemment accident yi bari na Abdoulaye Diallo Diallo lu mu wax à partir de 22 heures oto du dawati ci loo xam te ni sans ñoom daal fi instant yi suñu communiqué du yor réew réew dañ koy yor ci kaw vision réew dañ koy yor ci kaw prévoir parce que gouverner c'est prévoir alors actuel ñom chaque jour lu ne tel ñu wax ci bané say après do am ben suivi fofu nak ñun nekk ñu fa ñun dañu bëgg def lo xamanteni lu leer la dem taataan li nga xamanteni moy mooy jafe askan wi li ma la wax lepp nga xamanteni moy doxal réew mi ñu def ci lo xamanteni Sénégal bu nekk di ci mëna gis sa bop te lolu yaakaar nañ ko ci président Idrissa Seck ndax mom limu gëm moy compétence gëmul ay récompense té nguur gi fi nekk ñom dañuy récompense xam nga euh, jaaxaan di saw ah ku koy def sa bopp nga ko def lecture politique man laa lay wax politique yàgguma ci suñu jëmm ji nag fi mu toll nii mën naa euh, matat yi mais suñu xel sagul nee naa la sànq suñu njëlbeen wax Idrissa Seck trois communes d'arrondissement yi nekk Thiès nord est ouest fépp moo ko rafle Siré Dia Thiès commune la dëkk dëkkul ci département bi Idrissa Seck mu sa gañ département bi moom kese jamono bi fi Abdoulaye Wade nekkee ñom mo mor Sis nga dem jeen Sirax dem ay ngunjan Ngunjaan ñep mu suñu and ak Macky Sall bi Macky Sall toogee pour waxal na la réew mi tay fiñ tol ni danaka daanaka transiment yi man dama leen jàppe ay kakatar parce que fu toy ñu tak wuti lu ñu lekk te loolu fi mu toll Idriss Seck nee na su ñëwee dafay jële lu mel non tay ñooñu ñoo dem transimer and ak Macky Sall parce que soo xoolee acte 3 bi li mu indi tay moy commune bi nga xam moy département wu Thiès 16 communes la

wala fukki commune ak ñaar di xeex ak ñetti commune maam fi mu toll ni si xel commune yooyu ñoo war a gañee te fi toll ni commune bi nga xamante ni mooy département wu Thiès di commune ville tey Idrissa Seck ñoom ñooñu di wax ku ci nekk sa sant sax moo la fa gañee kon foofu fi mu toll suñu taxawee ne moom moo yëkkati Idrissa Seck dóor ko ba ci suuf kooku wax ju yàqu la ñoom suñuy sant ci seen victoire nan génn Thiès commune dem ba département bi sant waa département bi gërëm leen ndax bu duloon ñooñu maam làmbaay ñaaw ndax Idriss sekk fii ci Thiès commune rawee na leen dix mille voix léegi nag lee moo balote ñëw fi ñu toll nii ñu jël ñaari député yi nga xam te ne moo amoon te Idriss Seck ay député taxu koonu jóg moom li mu bëggoon un assemblée digne de son nom parce que day bu mu toll wax naa ko suñu émission passée actuellement ni fi mu dafa faté boppam pour ñu am majorité ci wàllu opposition bi pour mëna a contrecarrer li nga xam te pouvoir bi nga xam te ne injustice la ñuy arrogance ak impunité. non c'est-à-dire moy législatif passé gis nga man bima may organiser suma mouvement diko lancer lancé l'honorable député Hélène Tine na fi madame Aminata Lo ex ministre bu Abdoulaye Wade na fi ak tous les responsables yi nga xam te ne ñoo nekkoon ci parti euh, euh, opposition. maa ngi ko taxaw Sénégal bu njëkk bi parce que avant moy tas la wax. mais li ma leen waxoon dama leen élection législative yi bokk la élection présidentielle parce que fii raw gàddu la te fi mu Macky Sall tant que liste yi moo gën a bëri moo arrangé parce que raw gàddu la moom majoritaire moo nekk parti au pouvoir kon man li ma leen yàpp mooy ñun bokkuñ ci liss mais demande sociale la pour coalition bobu baña tassaro parce que sama ben mam daf ma yaboon ne ma bi muy génn àdduna am na doomam yoo xamante ni fi mu toll leen woowee daf leen wax ni bayilu mo leen fi alal mais ñew leen ma yab leen bimu ñewé mu tek ay bant ne dom yépp ku ci nek indil ben bant mu indi mu dam ku ci nek damu sa bant banti dam deuxième tour mu wat len ne indi wat len bant Yu ku ci nekk na wat benen bant ñu indi banti mu dajale ko ba mu nek say mu tak ko jox taw bi ne ko damal mu dam dammul ba doom mat ba ci chat mi mu len lima len jangal moy so len andé kenn du len mënal dara kenn du len dam mais so len tassaro ñu dam len ben par ben te demande sociale pour population bi moo doon am benn assemblée nationale digne de son nom cohabitation ñu imposé ko nguur gi nga xamante ni tey fi mu toll nii war nañ ñëw contrôler li nga xamante ne action gouvernement bi. foofu nag fi mu toll nii instant yi loolu ñu daloon je croyais que leçon la pour opposition bi tamit mën a responsabilité xam ne tey askan wi waratuñu leen jéppi élection bi ñu jëm plusieurs candidats lañ wax parce que ces phrases universel direct la. le président Macky Sall su amul 51 pour cent mënul premier tour te élection yi passé wane Nako. ko gi luubal gi ak lepp lo de ne fi mu par nii mooy gi def nañ ko 49 lan am kon je croyais que fi tolni toll jot na opposition bi jël sen responsabilité man moi xeex kese moy sama combat moy ñu ñuy def ba suñu carte d'identité nationale ñun ñëpp ñu jot ko pour 2 millions Sénégalais yi nga xamante ni woote woon ci élection passée mëna def sen droit civique. deuxième point moy fichier électoral bi il faut mu opposition bi tu euh, me euh, comment dirais-je euh, comment dirais-je de démission yi. Euh, euh, ordre de yi nga xam te ni tey dakaar gis na ni à partir de vingt deux heures ci suñu élection législative passée maam tey taxawu Sénégal bi moo nekk ci kaw ñu dem dugal ay ordre dem ba ay minutes une ñu ne ñoom gañe nañu te opposition bi nag maa ngi gis ne lépp lu président Macky Sall bëgg a teg day jàll nan taxaw xam ni Sénégal moo ngi ci guuta goo xamante ni Umar wallahi azim suñ ko karoon ëllëg lim fi signé ci loo xamante ni fi mu toll ay protocole la dina ko bàyyeeg nga xamante ni fi toll yaa ngi dégg ñooy suñu doom ñu fay leen pour kase Sénégal fii ak 30 ans mu nekk ci guddi goo xam te ne du mën a décoller kon nag jot na ñu mën a teg suñu réew teg ko ci yoon di la sant yow di la gërëm wasalaam.